ni mboolem mboolem nawet ni daa mer de ajaratu nuyu mboolem téléspectateur yëpp di jaar ñëpp di leen euh, baalu ak comme ni ko Omar waxee di mm. wax ne lépp lu ñu ñaan rek si laylatul xadar bi yàlla nañu ko yàlla suñu borom bi may te ñu yàgg ko fekkee yàlla may ñu wér ak wérle di ko ñaanal ñëpp nag di la wax mm-hmm. tout à l'heure ak top 5 incha allah d'accord Alaaji Sa Ndiogou Mbengue maa ngi lay nuyu di la ziar ajaratu ñu ngi lay fay ñu lay ziar di la ñaanal jàmm. amiin maa ngi la koy dellu wax dem ba Touba di nuyu xalifa général des Mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu mhm. sunu Serigne sunu xarit Serigne siidi mu Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Mhm. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu Serigne Khadim Fall nekk ca kër ga di nuyu Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimu Axla ak kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Euh, di nuyu bu baax na ba Fall moom sunu maman la di ko nuyu di ko ñaanal jàmm waaye di nuyu bu baax monsieur Lo kooku sunu tonton la mhm. ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis nga mhm. xamante ni bi macha allah ginnaaw bi jóge fii toj na salon d'honneur moom Cheikh nuyu di ko féliciter <laughs> encore une fois di wax ni fi mu génn nooy na waaye di nuyu Serigne Medoune Seye borom tawfeex di ko ñaanal jàmm di wax ni Adja terroriste ñu ngi lay ziaraat encore une fois. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf waa saa kan naan terroriste. force occulte yi yow la. <laughs> force jox leen ñu tampon jërëjëf. Omar tey sa waa diwaan nga dalal. wala la dalal boobu waaw waaw moom ma ah, dafay dama kontaan ah. <laughs> Euh, mais danoo am gan nag il faut que ñu waxtaan ah. Abdourahmane Diallo président mouvement Kër Massar sunu yitte ah. Mhm. Euh, kon Abdourahmane ñu bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum wa sëñ Omar. maaleykum salaam. leen di soxna Betty. waaw ñu ngi lay fay. soxna Madjiguène ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Euh, di leen sant di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu waa Walfadjri yëpp mhm. wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko waxee rek ñaan yi ñu ñaan ci koor gi ak lépp lu ñu fi jaamu rek yàlla ko yàlla nangu yàlla wasal ci euh, defal ñu sutura euh, te it suñu pap yi nga xamante ni moo sosoon kër gi mhm. nga liggéey bu am solo bi nga xamante defoon na ko àndoon ci ak yéen ngeen mhm. continuer di ko def saa su ne ñu koy ñaan ñaan yi ñu def si koor gi ak liñ ci jàmm yàlla na ko fa fekk moom nu fi mu ne ak bépp jullit ak ñëpp ñi fa ne incha di profité si occasion bi boo leen ñu ko may ñuy nuyu waa Kër Massar. Mhm. suñu waa dëkk comme ni nga ko waxee sëñ Omar. Mhm. tey di rafetlu invitation bi di nuyu membre mouvement Kër Massar suñu yitte yëpp. Mhm. di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi. d'accord mais euh, kii di Abdourahmane Abdourahmane nag euh, président Macky Sall ginnaaw ba mu annoncé ni Kër Massar mooy 46e département bu Sénégal ñu foogoon ni da ngeen di tàccu ne ah gongo lii de président waxoon na ko def na ko. yéen ngeen am ci ay réserve réserve yooyu ngeen ci am yan la ak lu tax. waaw sëñ Omar comme ni nga ko waxee rek président bi mu ñëwee Kër Massar mu doonoon nga xamante ni population Kër Massar yàggoon nañ di ko jàmbat mu ñëw mu dig ñu ko ne dina ko def ñu ko ci sant di ko gërëm aussi bi mu jëfee li mu diglee maanaam tey mu jóg ne day def euh, Kër masaar mu nekk 46e département. Euh, loolu dañ koy rafetlu ndaxte digle bu nga xamante ni jëfe na ko waaye beneen jafe-jafe biñ ci am mooy tey gis nañ ni ci jëfalin bi Euh, ministre bi yor euh, wàllu boobu euh, am na ay kayit yu nga xamante ni jébbal nañ ko waaye kayit yooyu ñun liñ ci tënk ñun ci Kër Massar li ñu tënkal ci kayit yi daal jàpp nañ ni ñun gisuñu si suñu bopp. Mm-hmm. ndax boo jëlee tey ñaari pàcc yi nga xamante ni proposé nañ ko maanaam ñaari scénario lañ proposé bu njëkk ba. Euh, dafay am ñaari commune d'arrondissement mhm. ma ñaari commune d'arrondissement yi moom la ñu wooyee scénario 1 bi maanaam yëmbal ñaari yëmbal yi lay boole yëmbal nord yëmbal sud mu am beneen commune boobu mooy nekk premier arrondissement bi beneen bi day nekk Malika ak Kër Massar actuel mhm. deuxième scénario bi dañu ne day day dañuy defaat comme lële maanaam ñaari yëmbal yi dañ koy boole ñu daal di boole Malika ak Kër Massar si kaw mhm. les Kër Massar bi si suuf ñu ñëw ak Parcelles Assainies mhm. waaye foofu nag la dëgg-dëgg ñun suñu jafe-jafe fa la tàmbale mhm. ndax mënuñoo gis moom li mu def ci fànn boobu mhm. jël lu mel ni rab bi nga xamante ni si commune boobu la bokkoon maanaam commune jaxaay Parcelles Assainies ñàkkurab daaru cub mi xamante ni foofu la foofu la bokkoon mu jël ko mu koy taptal ci Sangalkam te képp ku xam wax dëgg yàlla foofu nu mu bindoo boo bëggee dem daaru cub da ngay dox rek jóge Kër ma Massar dugg biir daaru cub kon bu dee ñoom li ñu wax ci lay yi ñu jot a bind nee nañ proximité lañ ci jël maanaam jegeyontoo bi nee nañ it bëgg-bëgg population yi lañ jël ñun jàpp nañ ni loolu ñu dëxañ bind ko ak li ñu jëfe dafa waroo mhm. pour yow projet de départementalisation lan la wundu pour yow lan mooy objectif bi réel parce que euh, bari nañu ci posé question parce que bi nekk 46e département mi man mi sama morom li ñu daan jooy ci Kër Masara dépp Abdoulaye Wade di fàttali ni loolu du Macky Sall rek moo ko sumboon mais Abdoulaye Wade moo ko sumboon peut-être Macky Sall da koy doog a eggali mais yow incohérence yi ci am lan moo ko wund réellement politique la wala pour bëgg a jàppale Kër Massar. waaw normalement ñoom comme ni ñu ko waxee nii tey département Kër Massar bu ñu ko defoon dafa war a jàppale askan bi ndax xam nañ ni Kër Massar mu ngi dépendre si ci Pikine. Hmm. Pikine sori ñu jafe-jafe yu bëri bu ñu ko amee li wàllu ay këyit wala yenn ñu nar a dem bi pikin te hmm. tey population Kër Massar boo ko xoolee seize ah, arrondissement seize communes yi nekk biir Kër Massar yi nekk biir Pikine Kër moo ci ëpp densité. ci hmm. population bi. ndax boo jëlee Dakar te densité euh, habitants yi fii ci Dakar muy toll daanaka si ay mille ak yu teg waaye Kër masaar ñu ngi am densité bu nga xamante ni 12000 et quelques personnes par mètre par 12000 mm. et quelques personnes par mètre carré. donc mu doonoon population macha allah bu takk bu nekk biir Kër Massar ñu jàpp ni tey ñu jëloon ko ak presque 25 cent carrés 138 quartiers. ñu defoon ko département moo doon gën si askan bi te jàpp nañ ni loolu it bi biñ ko ni nga ko waxee noonu depuis temps Ablaye Wade ba Macky Sall ñëw jëfe ko jàpp nañ ni loolu dina doon lu nga xamante ni dina suqali gox bi ndax gox bi am na lu bëri lu nga xamante ni amu ko tey boo jëlee ay infrastructure lu mel ni hôpital boo jëlee ay infrastructure lu mel ni sportive ak yooyu stade ak yooyu yëpp amu fa ñu jàpp ni tey bu ñu amoon benn lu mel ni département yooyu nguur gi dina sawar gaaw koo def si biir département bi kon ñu jàpp ni baax la Massar mun a jël boppam en charge. <laughs> ça. waaw man de damay ñëw ak moom si li nga xamante ni bii mooy seen association bi nga xam ne mooy Kër Massar suñu yitte. Mhm. man damay faral di dégg Kër masaar jafe-jafe yi nga xamante ni bii mi ngi koy jànkonteel. Mhm. ban taxawaay ngeen am ci li nga xam ni mooy jafe-jafe yi Kër masaar di dund. yéen seen association bi lan la ci taxaw loo xamante ne bi mën ngeen koo taxaw wax nu ñu lii ak lii kat taxaw doon def nañ ko fa loo xamante ne bi nit ñi ñu ngi koy gis ak jafe-jafe yi ni nga xamante bi noonu la fa bare waaw sëñ sa loolu dañuy sawar ci àddu ci kàddu yooyu ndax wax dëgg yàlla képp ku dëkk Kër Massar gis na taxawaay bu am solo bu nga xamante ni mouvement Kër masaar suñu yitte mu ngi koy def ci lu yàggul rek bi weesu rek euh, ñun ak suñu la voix de la charité maye nañ fa ay ay kit alimentaire di yu nga xamante ni pour ñaari téeméeru famille yu nga xamante ni may nañ leen ay kit alimentaire pour jàppale leen ci koor gi mouvement Kër Massar suñu yitte tey si jamono yi ñu toll euh, ña ñaari at yu wees bënn nañu ay teen yu ànd ak ay moto ay ay pompe foofu si biir Kër Massar yu toll ci quarante cinq teen maanaam ñeent fukk ak juróomi teen foofu noonu implanté nañ fa ak suñuy partenaires fan jëlee xaalis boobu ngeen di. dañoo euh, ngeen di bënnee teen. dañoo am ay ay ay partenaires yu nga xamante ni dañuy jàppale ci wàllu woowu ñun ñoo leen di démarché dem fekk fekki leen waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yu nga xamante ni biir Kër Massar am na fa boo demee ci lu yàggul rek matagul weer ñu def fa benn forage bu nga xamante ni daanaka ñaari fukki million la foofu si alaaji paate forage bu nga xamante ni solaire la gis nga ko forage bu nga xamante ni solaire la mu am fukki robine ak ñaar te lépp doon lu nga xamante ni boo duggee ci internet bi ñun li ñuy def lépp daanaka dañ koy wasaare di wane te boobu moo nekkoon ñaareelu forage bi nga xamante ni mouvement Kër Massar suñu yitte ci ndimbalu partenaire am bu nga xamante ni pour forage yi front islamique pour l'éducation et le développement jàppalañ ci ñu def ko kon pour wax rek saa su ne ñu ngi xool li nga xamante ni mooy jafe-jafe askan bi ñu jog ci ñu taxaw si waaye yemuñu ci ñun suñu jëmm bopp suñu alalu bopp mbënd mi est-ce que waa Kër Massar ci seen jëmmi bopp Omar yow est-ce que sentiroon nga mouvement Kër Massar suñu yitte avant ñuy ñëw di taxaw di wax bi non c'est que non c'est que dama bëgg rek pour tamit Omar moom muy auditeel waaw mais Omar du invité non laaj ko Omar déglu ko euh, Omar Kër Massar la dëkk nag may ñu waaw mais du invité Kër Massar la dëkk du invité donc bu ñuy wax ci Kër Massar ah. tey ji Omar day doy pour mu nekk témoin est-ce que sentiroon nga mouvement Kër Massar suñu yitte yow Omar déjà damay jaxasal ak sa population xamal looy wax de. non non non déjà du lu ñuy sentir ak lu ñuy ñàkk sentir euh, bu dee forage bu mu wax gis naa ko. waaw ñu ngi woon ci yeneen yitte mais comme dama fi toog pour laaj. wax dëgg yàlla dama ah, man maanaam. c'est bien ci côté ndox mi yi nga wax noonu bënn noonu teen teg nañu forage mais dafa am ay infrastructure sociale de base yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla ay côté santé boo xoolee problème la Kër Massar côté diwaan bi mel ne Alaaji Paate bu nee la amul tey ndongo yi war a jàngee te pour tabax ëllëg dangay ngay tabax nit ñu wér tabax nit ñu am xam-xam. côté yooyu est-ce que am ngeen ci yéen ay taxawaay yoo xam ne tey jii mënoon dut baaraam ni yéen teg ngeen ci dara. waaw yow sa ci fan yooyu ci fànn yooyu wax dëgg yàlla bi mbas mi amee fii ci réew mi. Hmm. mouvement Kër saar moo nekkoon mouvement bi nga xamante ni ci biir Kër Massar. Mm. bépp structure de santé bi fa nekkoon mooy poste madame Ba ñoom ñëpp ñu ngi seetaan poste madame Ba euh, poste de santé bi nekk Kër Massar village poste de de santé bi nga xamante ni mu ngi daar Michel ak yooyu yëpp ñun ñoo jël suñuy alal jënd suñuy pompe jënd suñuy produit dem di leen pulvériser espace yooyu yëpp école yi bi ñu tàmbalee bëgg jàngaat bi mi ñu ñu feebar bi demee ba ba ñu war a ubbiwaat école yi école yi fa nekk yëpp mooy lycée ak yooyu ñun ñoo jël suñuy moyen ak suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy membre ñu dem ñu pulvériser école publique yi fa nekk yëpp pour que population bi war a mun a ñëw war a mun a ñëw jàng si waat bi magal Touba bi di tàmbali kër sëñ Touba bi nga xamante ni mu ngi foofu si kër Massar ñun ñoo jënd appareil lave-mains suñu alalu bopp may ko taalibe yi pour que ñu mun ko yóbbu Touba ñu mën ko léegi nag yow wax ci côté social ci mais man xam ne da ngeen ko teg ku ñëw teg ci bët comme li ngeen ne forage bi xam na ma gis ko mais ñu ne poste de santé bi si seen i financement la jaar yéen a ko tabax wala ñu ne école bi si seen financement la jaar yéen a ko tabax. mais duñu maire nag. duñu waaw ah, après foofu la question maire bi ñu ngi mun nañ la wax école alaaji paate école primaire bu alaaji paate mm. ñaari salle de classe yi nga xamante ni nguur gi tabax na ko fa mm. ci école bi ñun ñoo def démarche yi ñoo fekk ay jafe-jafe am na fa ñu jënd ñu jël suñuy suñuy suñuy suñuy ñu jël suñuy responsabilité dem rencontrer autorités yi waxtaan ak ñoom won leen li fa am ba tey ñaari salle de classe yooyu nga xamante ni mu ngi foofu alaaji Paate directeur bi monsieur Faye mu ngi ñuy seetaan nga xamante ni tey loolu ci loxo Kër Massar suñu yitte la jaare tey be tey Kër Massar mun a am loolu ci wàllu infrastructure yooyu ngay wax ci lu dul yàgg rek jënd nañ ay lalu hôpital si suñu alalu bopp lu ëpp une valeur de de un million de francs ay lalu hôpital yi nga xamante ni ay politiciens déguisé ngeen am na ñoo xamante ni bi nee nañ li ngeen di def nii yëpp dafa ay politiciens yoo xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw am lu ñu soxla ci Kër Massar. déet Sall Ndiogou ñun amul benn politicien bu nekk suñu ginnaaw ndaxte ñun li ñuy def ñun ñoo koy ñun ñoo koy defal suñu bopp ñun bokkuñu benn bokk. ñun ñun amul benn benn amul benn leader bu nga xamante ni mu ngi suñu ginnaaw. <laughs> ndax dañoo bokk biir Kër masaar am lu ñuy am lu nga xamante ni daf ñoo metti ci biir Kër Massar te ñu bëgg koo saafara boo xoolee yu bëre yu nga xamante ni tey comme yi nga doon tudd suñu mbir yi mu ngi tàmbali ci agression yi doon am Kër Massar ñu jékki-jékki commencé di jënd ay lampadaire te am na fa ay quartier mais c'est que loolu mooy li nga xam ne moom mairie bi moo ko war a liggéey yéen ngeen bëgg a ñëw taxaw di ko def yéen da ngeen a taxaw pour nangu poste maire bi maanaam yéen ay politiciens kagule ngeen. loolu mooy li nga xam ne moom la gars yi di wax. man li gars yi di wax rek laa ah, wax. moo tax ñooñu nag ñun nag dañ lay tontu ci loolu ci loolu nit ñi wax xam nga tey ñun ci biir Kër Massar lañu bokk. Kër Massar la ñu bokk te li nga wax noonu ñun suñu mouvement bi ñu ko sosee jóg nañ ba dem gisi monsieur le maire Mbeng mu ñuy dëgg ñu ne ko ñu ne ko bëgg nañu ñëw ñu jàppale ko ndax ñun ñi am na fu ñu ne am na ci ñuy liggéey man mi ci biir nguur laay lekk nekk am naa lu ma fa nekk ñeneen am na lu ñu fa nekk ñu ne ko ñun suñu man-man yooyu ak suñuy relation bëgg nañ ñëw jàppale ko mu ne ñu bu soobee yàlla dinañu woo ñu xool ba xam ni ñu def mm. jafe-jafe yi amoon suñuy gox yi kenn saafarawu ko ñun ñoo obligé dem jëndi suñuy lampadaire tey boo demee quartier bu mel ni Minam Gabbaan boo demee quartier bu mel ni Medina Kër ma Massar ak quartier Baaj ñetti quartier yi nga xam ne ñaari ñaari ñaari fukki lampadaire ak juróom ñun ñoo jënd suñuy lampadaire ak suñu alalu bopp population yaa ñuy dégg mm. ñu dem won ko délégué de def fa lampadaire yi ñaar fukki lampadaire ak juróom yi nekk si quartier boobu suñu mouvement moo ko jënd def ko fa tey ko ñu def ko fa kon li nga doon wax aussi si wàllu infrastructure yi jënd nañ ay lalu hôpital yi nga xamante ni bu soobee yàlla bëgg nañ fi weer ñu war koo mën a may poste de santé ndax ay lal yu mucc ayib la yi nga xamante ni ay lits d'accouchement la si suñu alal boobu may ñu rubrique bi yow kese da nga ko bokk ak say nawle Euh, yaa ngi wax Mbeng monsieur Mbeng mi nga xamante ni moom moo di seen maire Moustapha euh, voilà yéen li ngeen li nga wax nii yëpp moom ngeen def ci biir Kër Massar moom est-ce que accompagné na leen ci loxoom a ngi ci wala wala dafa toog di leen seetaan. déedéet bu moom kay dafa day day ñëw sa yenn yi bu ñu koy def sa dañ koy jéem a xajamal ndax euh, comme ni ma doon wax moom maire bi ak ñi mu àndal dañ koy jéem a xajamal euh, ñun saa ñuy def yu mel noonu dinañ leen invité hmm. waaye doo ko gis moom du ñëw ay nitam du ñëw dañuy dëpp dañuy wëlbatiku léeg-léeg di def ay audio naan lii ñu def nii ñoom ñoo ko def man amoon na jamono fii nee nañ lépp lu ma def maire moo ma ko defloo moom moo ma yónnee ak yooyu ma ne leen man maire nan la ma mun a yónnee ndax ñun ñëw nañ ci moom bëgg koo jàppale ci li nga xamante ni mu ngi koy def ñu ñun nag ñu jàpp si population bi la ñu dëkk duñu xaar état duñu xaar kenn ndax ñun loolu suñu devoir citoyen la am nañu ay possibilité am ay relation am suñuy cotisation yi nga xam ne li ma lay wax yu mel ni lamp euh, lalu hôpital yi suñu alalu bopp la du du partenaire moo ñu jàppale ñoo génnee suñu un million jënd suñuy lal te am nañu yaakaar ni bés bu ñu koy joxee wal fajiri comme nu mu koy faral di defaree pour les sans voix di ngeen ñëw ngeen accompagner ñu ci loolu mais mais Diallo ah tey na ñetti maire ba mu sosoog léegi Boy Mbacké Diop ak euh, kii di Moustapha Meng mais Kër Massar man sama impression mooy maire yi fa jaar yëpp liggéeyuñu man loolu laa gëm léegi nag seen ñàkk liggéey ci ñoom la wala da leen yan lu nu attanul maanaam ni Kër Massar toll ci yaatuwaay ak ci mbooloo la fa ne yëpp mu doonoon ak commune tey jii ñu jëloon ko teg seen kaw ba tax ñoom mënuñu doxal est-ce que nag tey jii yéen a ngi dingat départementalisation bi di wax ni ay incohérence la est-ce que départementalisation bi Kër Massar du fi jaare nag mën a suqaliku mais suqaliku boobu nag est-ce que du egg ci te ngeen sensibiliser nit ñi maanaam defar baax na mais defar nit moo gën a jafe defar nit ñi ba ba ëllëg bu ñuy fal ñu fal koo xam ne day nekk seen yitte est-ce que ah, taxawaay boobu sëñ Omar li nga wax moom am na solo ndax euh, tey li nga wax jafe-jafe yu bëri nga xam xamante ni Kër masaar mu ngi koy jànkonteel population bi seen bopp ñoo bàyyi maire yi di doxalee nu mu leen neexee maanaam ñoom maire yi ñooy xool lu leen doy ñu def ko lu leen doyul duñ ko def population bi duñ ko contrôler ci mairie bi tey boo demee nit ñi budget bi mënuñ laa wax budget commune bi fan la dem ñu jàpp ni loolu nag dafa war a mën a jeex moo tax yu mu ay mouvement yu mel ni suñu mouvement ñu jóg won askan bi déjà ñun dañuy jël ci suñu moomeelu bopp def xaaruñu mairie xaaruñu état waaye ñaax leen pour que ñoom ñëpp ñu war a a jóg ñu xool lan mooy suqali Kër Massar ñu taxawoo ko lépp lu mairie bi di def lu dama leen mere yéen yéen faluñu leen naam li ngeen di def baax na mais faluñu leen ki ñu fal yëkkati budget milliard teg ci loxoom maanaam kooku yéen da ngeen war a nekk ñoo xam ne tey jii da koy da ngeen koy bipp ak di ko pousser ci mu mu def. mais tey ji comme ni saa waxee boo leen nekkee coté bee di def c'est comme si da ngeen am des ambitions cassées yoo leen di nëbb pour ëllëg ngeen mën a falu. déedéet maire bi maire bi lépp lu muy def ñun ñu ngi koy topp ndaxte saa yu ñëwee mu ne def na lii ñu ngi koy naan dañoo bëgg nga nga indi ñu firnde man maire bi lan laa gis ci lu mu fa def ah, na ma baal ah mooy mooy foiram yi bu tabaski amee korité 31 décembre ak tabax ay kër man man tey bu ma doon tiré bilan foofu laa gis waaw kër lan ay logements sociaux la ay kër këru boppam ah voilà këru boppam laa gis mi tabax man gisuma leen lu mu tabax kër Massar bu ko keneen gisee na ma wax non yaa ngi gis mais de tey ji ah boo xam ne ay armeeru chrétien ak foofu boo xam ne communauté chrétienne bi ni mu bëree foofu stade amul Kër Massar niveau hôpital bi a nekkee sax ci dëkk bu toll ne Kër Massar maanaam yooyu dafa nekk ay problème yoo xam ne ak marché bi ñu moderniser ko tey jii ñii amoon naa dëkk Kër mais pour ñu yegg sam kër sax problème la amuñu fun jaar boo xoolee tey ñi rond point Kër Massar mel ak tey ji chantier yi ñu fa indi yu bees ñun ñi mii xëy di wàcc ñu koy def ñëpp dañuy sonn maanaam pour man loolu mooy priorité pour Kër Massar ñu taxaw ci c'est bien social nga yëkkati jox nit mu lekk mais nga samp dara pour le développement ñu soxaliku pour ëllëg même bu ñu ci jariñu suñu doom jariñu pour ëllëg mais Kër Massar est-ce que mën na continuer nii muy doxee ak jàmbat yi ma la tegal nii sëñ Omar kon li nga wax noonu pour rek dëggal la li nga wax maire bi lépp lu muy def ñu ngi koy topp tey rek ni naa la wax tey ñun ñooy une des rares communes en tout cas bu nga xamante ni maire bi dafa porter plainte ay parce que dañoo dénoncer yenn yu ngay def boo jëlee tey mel ni africanité famille nga xam ne groupe de rap la nekk Kër Massar ñuy liggéey ak ñoom ñun ñëw maire bi am yu mu annoncé ne par exemple boo jëlee stade Kër Massar nee na def na fa ay 40 millions ak lu teg association yi ASC yi mu ne jox na leen 20 millions alors que bi ñu vérifié 2 millions sa joxewu ko ñooñu daal di ko def ay laaj def benn benn kii di ko laaj mooy période yi ñu daan wax ay tafa dégage ak yooyu loolu yëpp pour que mu mun ñu wax ñun suñu alal suñu budget fan la ko dugal ndax Kër Massar comme ni nga ko waxee budget Kër Massar ëpp na 1 milliard 1 milliard boobu at yi yëpp ñu tegle daanaka juróomi at fan la dugal budget kenn ku dëkk Kër Massar mënu la ko wax ku ko mu ne la waroo ma ko laaj fu mu ne ni moom ak ñooñu ñu ngi si ah, yoon. lu tax waruñu ko laaj. moom dafa jàpp ni tey moom lu ko neex def nu ko nu mu ko bëggee noonu la koy doxalee tey moom ak africanité famille nga xamante ni ñun ñu ngi leen di soutenir ci combat boobu. ñu ngi justice. parce que mais africanité famille ñoom lan ko maire bi nee ko maire bi li ngay li ngay wax ak li ngay jëf bokkul nee nga fi stade bi def nga fi 42 millions. Ah, alors que stade bi ñaari rangée brique kese nga fa dolli ndax stade bi foofu la nekkoon mur bi fa la nekkoon dafa ñëw dolli ñaari rangée brique dafa ay grillage taxaw ne def na fa ay 40 millions ak lu teg ñoo ñu nekk loolu nga wax noonu foo ko teg marché mm. Aynu Maadi bi ñu jël marché Aynu Maadi bi jël cantine yëpp jaay ko bi ñu ko jaayee ñu ne ko alal boobu fan la dugg te yenn yi yenn facture ak yooyu ñoom ñoo ko defar mu ne moom promoteur la promoteur bu nga xamante ne moo ñëw waxtaan ak waa marché bi moom loolu yoonam nekku ci te mu doon marché Kër Massar ñu ñu jël alal bu day noonu yëpp ay ñu jël ko jox ko nit kooku luubal ko ba pare mu ne moom yoonam nekku si nit ñi ne ko nag ñu da ñuy wax suñu alal foo ko dugal suñu budget ak suñuy recettes yi nga xamante ni ñu ngi la koy jox lan nga ci def ndax wax dëgg yàlla soxna Betty boo demee mhm. Kër Massar da ngay gis ni maire bi foofu amul lenn lu nga xamante ni nit mun na ci duut baaraam ne la mairie bi lii la def lu dul nguur mu fa def wala mairie de ville mairie de ville à partir de Pikine ñoo am lu nga xamante moom mu nga fa amul lenn lu nga xamante ni na ko ñuy dem euh, jaale ji ñu ngi ñu naan ñu fii nii bu ngeen fi ñëwee nawet du ngeen fi sax egsi mais côté assainissement bokk moom lan la ci jéem a def sax non non xam nga dafa am compétence compétence transférée yi compétence transférée d'accord mais am na ci yoo xamante ni saa ma xam naa ko de parce que nawet bi mi ngi ñëw Omar xam nga côté boobu moo ko fa diggee woon moo ko fa bàyyi président moo ko war a def non non moom moo ko war a def maire bi la wax maire dañoo yor dërëm bay mais mais buñ tegee buñ tegee un buñ tegee un maire mu nekk un dafa war a porter les revendications ah, maire bi nga xam ne whatsapp la ne groupe whatsapp yi lay nekk di audio audio ñu di rëcc rek audio bu dem nee na. waaw mais même bu dee compétence transférée maire bi am na loo xamante ni lu tuuti loo xam ne war na ko mën a def. soxna Kër Masar naka li ma wax ni wax loolu lu am la ndaxte nee nañu gars yi nee nañu te kenn benn gaa wax question bi waa Kër Masar yëpp di xaar mooy question bi. vraiment parce que kenn xalawatul parce que assainissement ak inondation yi moom na fi toog rek naan gars yi nee nañu na fi toog rek naan gars yi nee nañu loolu la ñu digoon dañoo dinañ ko assainir ndax assainissement boobu ngay wax mairie bi war nañ ci indi ay jéego ndax ñun ñii suñu mouvement. nekk ci groupe WhatsApp. Alaaji Saniogo ñun ñii suñu mouvement at mu nekk daaw rek moo ci mujj ci inondation yi passé at mu nekk dañuy jënd suñuy moto pompe yu mag ah. ñu nga xamante ñun ñooy dem dimbale population bi ñu ngi ñuy déglu hmm. pompeel leen seen ndox mi demee ci canalisation yi mu dem ñun ñooy jënd suñuy alalu bopp kon mairie hmm. asma mairie ñun ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla amuñu poste politique amuñu dara daaw gi président jaaree foofu léegi nag am na ci ci jëm ci pour que bu nawet bi ñëwee lan dundoon daaw ci wàllu canalisation yi am na ñaari bërëb yu nga xamante ni tàmbale nañu liggéey bi foofu tey boo jëlee fu mel ni daaru xaan daaru rahman ñoo ngi def canalisation yi ñu ngi koy gas boo demee tey Camille Basse ak Parcelles Assainies yi nga xamante ni mbir mi wulle woon na foofu fu mu ne ni canalisation yi ñu ngi koy defar foofu noonu waaye dañu newoon ay bërëb yu mel ni Sotrac Sotrac tey boo fa demee ci Sotrac am na fa ay kër yu bëri yu nga xamante ni tey fu mu ne nii ci suuf kenn dëkkatu fa maanaam ay étage la nit ñi si kaw la ñu dëkk ndaxte ndox mi ba léegi seen kër yi nu mu yàqoo mënatuñ ci dëkk nee nañ ñu bërëb yu mel noonu lu mel ni Sotrac lu mel ni Alaaji Paate lu mel ni ay daar Michel dinañ ñu doon defal ay ay dinañ ñu doon defal foofu noonu ay système de pompage yu nga xamante day ànd ak ay bassin ba tey bi ñuy wax ak yéen ñun bassin yooyu gisuñu benn brique bu ñu fa teg pour naan dañuy def bassin yooyu ñu jàpp ni nag nawet bi ñëwee ak autopont bi ñu nekk di def mm-hmm. jafe-jafe yi muy mu nar a jural Kër Massar mooy kenn dootul génn biir Kër Massar ndax voie de contournement yi bëriwul te lii bu continuer ba nawet bi fekk ñu fa ñun ñëpp a nar a ñun ñëpp a nar a inondé te bu ñu inondé génn Kër Massar sa duñ ko man kon ñoo ngi attirer attention président de la république pour que mu xam ni kii ñi nga xamante ni ñu ngi ko fa toogal am liggéey bu nga xamante ni wax dëgg yàlla tàmbali nañ ko ñu koy rafetlu waaye am na lu bëri lu des lu nga xamante ni population yooyu bu jógul si ñoom daañu dund lu jafe lool waaw kon nag ñoo ngi leen di sant seen émission bu am solo bi nga xamante ni wax dëgg yàlla saa ne dañ koy seetaan eh, di remercier Walfadjri si innovation yi ci lépp ndax gis nañu fu mu ne nii wax dëgg yàlla yokkute bi am bu baax a baax